وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر salaamaaleykum sama mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel ci sunu weer wu tedd wii di safarul xayr nuy ñaan li ci sëñ bi digle ñu defe ko ni mu ko bëggee te tase di fàttali rek ñenn ñi nga xam ne xëy na xamuñ ni mu demee ne màggal mi ngi tàmbalee ci samedi ci ngoon bu jant soo guddi googu mooy guddi màggal di guddi dimanche ndax ku ne xam ne ne samedi mooy bëccëgub fukk ak juróom soo guddi gi ngay dugg mooy guddi fukk ak juróom-ñett kon guddi googu mooy guddi màggal boo ko xëyee yendoo ko màggal ba jant soo guddi altine ngay dugg. guddik fukk ak juróom-ñeent la damay bañ ñu bari mu di leen nax kon ku bëgg a màggal guddik màggal jàppal ne bëccëgub gaaw mooy fukk ak juróom-ñaar bu jant soo màggal dugg na loo bëgg a def ci ay bernde tàmbalil loo bëgg a def ci jàngal xuraan ak xasida tàmbalil lu baax loo bëgg a def rek tàmbalil màggal tàmbali na mu ngi tàmbalee ci gaaw ca ngoon bu jant soo mm. nga fanaane ko xëy yendoo ko ci bëccëgub dimaas bi dimanche jooju mooy doon fukk ak juróom-ñett foofu nag tëkkuñu ko ci yoor-yoor bi wala waxtu sàngam wala waxtu sàngam loolu amul cëslaay lu wér-wér kenn jëlewu ko fenn bëccëg bépp yam foofi berndee baax na amul waxtu wuñ ko jagleel li am solo daal mooy bëccëgu fukki fukk ak juróom-ñett yëpp foofi defee lu baax rek suñ bi nangu na ko sëñ bi gis na ko waaye néewuñ nag yoor-yoor bi wala nga dem barab sàngam fa lañ ko war a dee déedéet. fukk fu waay mën a toog te bernde te jàng alxuraan jàng xaside jublu ci sant yàlla sëriñ bi baax na waaye tënkuñu ko ci ab yoor yor wala tisbaar wala takkusaan waaye nag boo ko yendoo ba jant soo nag xamal ne màggal jeex na moom ndax fukk ak juróom-ñett suñ ko waxoon bu jant so lay jeex kon guddi ga ca topp di fukk ak lay doon muy guddi altine ga googa moom ak loo mën a jàng ak loo mën a def xamal ne da gunge màggal waaye màggal jeex na kon nag guddi gi bu la raw gaaw ca ngoon la bu jant soo ci li juróom-ñett di dugg te guddi màggal gi nga xëy yendoo ko ba jant so màggal gi jeex na. gunge gan nag wàññiwul dara waaye jëmmi gan gi nag mooy guddi fukk ak juróom-ñett di gaawu ca ngoon na leer sama bokki murid yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu abaxya fi ixdami xayri wara bada wa fi kulli shahrin zayd ribxi wa fi safar